deux cent moo ci des voilà moo ci des kon di santaat uti sëñ Abdou Samad xam naa ñi ngi xaar mu war dugg si ndeysaan bi mu yëgee bis bi rek daa jël As-Samadiyya maanaam YouTube beeg rajo beeg lépp rek ni nañ ko def ci liggéey Serigne Touba bi ngir jëm yàlla te buñ ci laaj kenn dara kon Mbàkke ñi ngi lay santaat baat ci taxawaay bi ak soññe bi loolu sëñ ab Ablaye doon wax sax da koo jëf daa gis yëf yi rek jëf loolu jëf addiyaam te ni nag am da koy tàmbalee bañ a neenal bés bi kon ñu koy sant baax loolu rek ab soññe la nga ne ci liggéey sa kilifa fekk la ci rek daan am nu mu doxee kon nag nañu soññewaat bu baax a baax ñii laaj nañ jóg laaj te bañ a tay ñoom sëñ Saliou Baye Eli nañ jóg jël euh, maanaam TP